baax auzu billaahi mina sheytaani rajiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen donc mbokk yi ñu bëggoon ñëw nag waxtaanee li nga xamante ni tey mooy les mauvaises croyances africaine dans le mariage ou ñu ne tamit les mythes les yi nga xamante ni dañu ko gëmloo dans le mariage te amul benn fondement waaw parce que dañuy faral di gis ni nag suñu sëy yi malheureusement euh, presque euh, dañ ci faral di dégg yoo xamante ni euh, aaye ñëwu ci xadis ñëwu ci lu dul rek ay wax yoo xam ne amul bopp amul geen d'habitude mu nekk ay wax yoo xamante ni presque duñ ci bàyyi xel mais dafay construire ay déséquilibre ci suñu biir cerveau yi donc maa ngi nuyu bépp internet di wax ni euh, li nga xam ni mooy par exemple bi gën a banaan liggéey nday añub doom wala boo bëggee say doom tekki da ngay muñ dangay nangu ñu def la jaam dangay nangu ñu daal di lay maltraité dangay nangu ñu teg la yoo xamante ni daanaka yu doy waar la waaw beneen bi tamit mooy ku ñulug sa jëkkër yàq sa doom <laughs> boo bëggee dégg njaag nangul ah mythologie yooyu bu bëggee a jur doom juy sol mbaxane da ngay nangoo caraxu loole nga wala. waaw du coup y' a mythologie yoo xamante ni dañ ko créer construire ko pour déconstruire la mooy parce que jigéen euh, dafa nekk ki nga xamante ni dafa émotionnel te jigéen dafa xër ci doom ba tax na euh, presque dañuy gis ni suñu euh, dëkk suñu réew Afrique balaa lislaam di ñëw presque mën nañ ne ay aada ñoo fa amoon ay cosaan yoo xamante ni am na ci yoo xam ne l'islam bi mu ñëwee daf ko maanaam dindiw ko Euh, daf leen ko bàyyil parce que yu baax la mais am na yi nga xam ne bi lislaam ñëwee dindi na ko am na yi nga xam ne ba tey lislaam dindi na ko waaye nit ñi ñoo ko nangul dindi nit nit ñi ñoo ko nangul bàyyi ba ñi nga xam des fois dañ leen ay borom xam-xam dañ koy dañ koy wax dañ koy prôner parce que uniquement daf leen a arrangé mu nekk ay wax yoo xam ne dëgg la du yàq dara ci sa jaamu yàlla mën na bañ a yàq dara ci sa aqida mais nag mën na nekk li nga xamante ni mën na la indil problème déséquilibre boo xamante ni tey gëm-gëm dafa foor ci doomu aadama te nit presque gëm-gëm bi nga xamante ni mooy gëm-gëm bi la euh, forger gëm-gëm bi nga xamante ni bi nga nekkee xale ba nekk mag moom nga gëm moom nga gis say waajur di ko dundee moom nga gis nit ñi société bi ñëpp di ko wax day dem ba maanaam ngeen baal ma ci wax ji mais euh, li nga xam ni ay lu dëgg la bu ko yàggee di répété di ko répété di ko répété day dem ba mujjee nekk dëgg te na sax du dëgg <laughs> sama genre xanaa gis nga ma tey genre poussin tey moom poussin laa <laughs> macha allah tey dama ñëw rek daal di vax daal def vax nag ah mi ngi noonu macha allah eh, coro ñu ngi leen nuyu di la ziyaare donc ñu gis ni euh, mythologie yooyu nekk na li nga xamante ni dafay indil nit ñi problème parce que bu ñu nekkee ci réew réew mi ñi nga xamante ni tey ñoo waroon xëy na départager entre diine ak aada presque ñoom ñooy ñëw daal di euh, jàppale aada ci yenn fondement yi nga xamante ni dafay yàq euh, nit parce que tey jigéen bu ñu xoolee jigéen tey nekk na ki nga xamante ni presque dañu construire ay musiba pour déconstruire ko ndax jigéen mënul am épanouissement ci société bi. li tax tey ma indi thème bi mooy tey euh, le 14 janvier ñu koy wax Saint-Valentin waaw Saint-Valentin nag yaakaar naa ne jullit normalement war ko feete normalement du feet boo xamante ni origine am ça euh, ça n'a rien à avec nous origine amul benn mën nañ ne amul benn. Euh, jeexital wala benn solo ci lislaam kon ça ne nous concerne pas waaleykum salaam wa rahmatullah soxna Seyna bu ñu ngi lay nuyu di la ziyaare di wax merci beaucoup donc du ko il faut tamit ñu bàyyi xel que ni lépp li nga xamante ni bokku ci lislaam buñ ko ci boole mais bu ñuy wax si euh, mbëggeel en général jigéen ak ci gaañu jour Saint-Valentin bi nii comme niñ ko gisee tey ñi nga xam ni yàlla ma yàlla baal xamuñu fu ñuy taxaw laay wax waaw parce que nit boo xamee fi ngay taxaw dangay xool li nga xam ni moo lay dimbali moo lay defar nga taxaw ci brèche la bu ndaw bu may ubbi parce que dama naan Saint-Valentin bu ñu xoolee ba ca biir ñu koy féete la plupart dangay am conteneeru problème si sa couple benn bés ñëw nga ni dangay xàppi dangay defar sa couple danga koy neexal te yow pourtant bu ñu xoolee yaa ngi yooyu conteneeru problème ci sa biir couple mënul réglé wu mais pourtant Saint-Valentin bu jotee da ngay def genre wane ni ah sañse couple daal de wan monde bi monde bi ngay wan ni yow tu heureuse mais au au fin fond de yaa ngi gàddu conteneur yoo xam ne tey ku la ko tegaloon ci kaw taabul ji daanaka boo moytul doo dox bëccëg wala doo génn fa lampe di tàkk ndax gàcce kon jigéen ñi nañu bàyyi triche bi ak naxante bi waaye boo amee problème ñëwal seet si coach mu réglal la ko waaw sa sëy bu neexul jéemal xool nu muy neexee te nga moytu di dugg ci euh, musiba yi nga xamante ni mooy di afficher sa bopp wala di indi sa bopp loo xamante ni tey existé wul parce que jigéen ñu bari dañuy mujj frustration man damay recevoir tellement de messages coach sama jëkkër maa ngi préparé defar naa sama lal chaque Saint-Valentin le lendemain message dama koy jot waaw defar naa sama lal décoré naa sama néeg ah defar naa sama reer bu baax sañse naa et mais waa ji ba tey ubbiwul gémmiñam ne ma rafet na wala mu <laughs> complimenté ma wala sax mu jox ma cadeau <laughs> de un ginnaaw feet la boo xam ne bokkul ci suñu diinee kon ça veut dire que euh, normalement ñu ko feete mooy dégg nga kàddu yàlla beneen bi mooy ki koy defal sax il n'est pas reconnaissant waaye waaye mënoon nga ko jënd sa bopp pour taade wala sax nga sànqee ko nga am ci tiyaaba waaye déedéet tout le temps dañuy bëgg def comme fekk na sëy bu amee problème dañ ko war a régler bàyyi li nga xamante ni mooy affichage bi parce que gis nga ñun jigéen dañu mën a tricher ngeen baal ma jox ji góor ñi nag duñu tricher ñoom bu ñu la bëggee dañ la ko wan bu ñu ñaata góor nga fiy sëy ngay sëy góor nga leer na kii bugg la te du la war ne bëgg na la à part téye la ci këram pour des intérêts personnels mais mbëggeel moom nekk fa parce que dund leen amul dund leen en couple yow da ngay dund tu es seul tu vis lu tax tu vis seul parce que say problème yaa ko lijjanti sa bopp boo jaaxlee yaa ko lijjanti sa bopp bu dee waxtaan moom il ne t'écoute pas il ne t'épaule pas il ne te console pas lijjantiwul yow moom lijjantiwul sa dara donc tu vis seul moom il vit seul ku nekk am nga sa monde sa univers ci biir kër gi avec ça bu euh, Saint-Valentin jotee. yow nga taxaw nga ni dangay neexal waa ji yenn yi nag mooy woye di dëgg ngeen baal ma jox ji donc ñu ñëwaat ci suñu mythologie yi nga xamante ni ku fi dee moo la rey <laughs> ah ñi nga xamante ni moom la ñuy construire si suñu bopp tey ca guddi gañ lay gañ lay muur tey ma wax nag waaw bu ma kenn téye bàyyi leen ma rek ma wax ca guddi gañ lay muur fa la ñuy commencé. taaj la ci digg ëtt ba yow kase yow rek na ngaa war a sëy de mooy encore une fois maanaam dama leen di wan mauvaise croyance yi ak déséquilibre bi ñu déséquilibré balance bi ba tax ñun suñu yuuxu dina yàgg a métti te duñu am ku ñuy wallu yàlla ba mu ñu walloo 14 siècle lañu wallu mais ñun Sénégal bëgguñu wallu suñu bopp ñi nga xam ni tamit ñooy ñi nga xam ni <laughs> ñoom ñooy maye ak waajur yi maye seen doom ñoom bëgguñoo wallu ba tey seen doom kon cela veut que nan la ñuy def mooy dañuy taaj ndaw si ci digg ëtt bi daal di def li nga xamante ni moom la ñuy wax manipulation collective Euh, bàjjan yi yaay yi tante yi euh, waa kër ga ñëpp toog ñëw ni di ku nekk maanaam ku wax jox sa morom sa cerveau bi ñu jàpp ko di ko passeport def ko éponge ku nekk bëgg na li muy wax nga absorbé ko boo demee nekkal mbaxane bu la saagaa bul yuuxu bu la bu bul yuuxu bu la giiwee sa kilifa la nekkal mbaxane nekkal dàll sax mu lay sol na la toroxal na la nàngam bul fay bul jàmbat bul boole bul wax waa wax ji mënuñu ko gàttal ñu ne la boo demee nekkal jaam ndax jaam du fay jaam du de amul kër jaam amul famille jaam kenn du amul droit parce que jaam amul droit ah jàpp ci lislaam moom jaam amoon na droit ndax ci lislaam moom li yàlla bi suñu borom ba mu wàccee ñëpp la jox droit yàlla dafa jox droit ba jox droit bàyyi ma yi yàlla dafa jox droit ba jox droit environnement yi air bi yeeg fleur yi waaw ñun nag lislaam ñëw jox ñu droit yoo xam ni kenn mënul xam mu toll suñu société africaine jàpp jigéen def def ko benn façon morse fa bere boo xam ne kenn mënul comprendre le pourquoi du comment bu ñu xasee rek ba tàcc digg ëtt ba ba jox lay arsenal collectif ci ay message yoo xam ne mooy lan mooy yow boo demee nekkal euh, robot ambulant waaw nga nekk smartphone boo xam ne waa ji daf lay jël di la commander di la manipuler et que yow waroo waroo riposter de boo riposter mooy doy say kat parce que boo bëggee nag say doom baax il faut que nga nangu ñu lay xas di la dóor di la yuuxu di la saaga condition la ah. pour say doom baax boo bëggee say doom barke il faut nga nangu di fobeereel euh, njëkk ya di fobeereel goro yi njëkkee bu leen neexee ñu dóor la ba nga bëgg a dee njëkkee bu leen neexee <laughs> ñu def la du porte quoi lu tax soi-disant rek da war a am doom yu baax soi-disant boo deewee loolu moo la yóbbu àjjana waaw mais ñun des fois damay laajte parce que des fois gis jigéen bu ñëw tellement ki jigéen yi dañuy angoissé et dañ ma naan Fatima euh, dama bëgg am doom bu baax dama bëgg sama samay doom barkeel. parce que lii may muñ nàngam sàngam mais ma la mais doom ju baax lan la jotee ak yow sa sëy loolu laay bëgg laaj man ba tey parce que dafa mel ni bu ñu delluwaatee ci sa yonent yi dafa mel ni gis nañ fi yonent yàlla noox alayhi salaam am na doom ju bon pour pourtant yonent la de pourtant am na doom joo xam ni déggalu ko woon kon moom yonent gu mu doon gi lu tax influencé wul ci doomam bu ñu delluwaatee ci yoon ci yonent bi salaa salaam yi nga xamante ni mooy suñu yonent moom la ñuy roy moom la ñu bëgg yonent bi salaa salaam dafa ne keroog ba nga xamante ni lislaam wàcc na dafa woo jaboote bi dajale leen ne leen ku yeboo nag na nga jaamu yàlla ndax ku fi jaamuwul yàlla mënalu ma la dara ci kanamu yàlla jabar ak doom ak ñëpp a ca yam waa léegi sa jabar bu jàppee ni yow jigéen boo jàppee ni yow sëy bi bale bi togg bi raxas bi yàq bi amul fenn fu ñu ko xëj saaru alxuraan xam ngeen lu tax xam ngeen lan moo tax bale beeg togg beeg fóot beeg raxas bi kenn boolew ko ci charia xam nga lu tax mooy dafa am ñeneen ñu ko war a mën a def sax mën la ci jàppale mbaa ñu fay leen ñu def ko xam nga yow lan lañ la sant nga nekk sa ren nekk princesse bi nga xamante ni dangay dalal sa jëkkër jox ko confort dangay jël sa jëkkër recevoir ko mais nit ki par exemple dama leen di jox secrétaire bi nga xamante ni

ku jàpp saaga ku jàpp boo toggee dañuy lekk ba mu neex leen ñëdd bool ba ba pare teg ci neexul wala la mu togg doy loolu togg bi daa bëri dool wala togg bi daa nangam gis ngeen yéen yi ñàkk fayda la man dama ne mag ponkalu magum jëmb bu ma dugg jee dem marché ba ñëw ba toggal leen ba toggal leen ba taajal ku am wax ci boo moytu bu subaa doo dugg sa loxo ci bool bi ndax ñàkk jom mënta weesu nga nekk ngeen baal ma tax ci nga nekk ponkalu magum jëmm sa moroom mu jigéen toggal la ba mu neex yàqal la taajal la nga di ko sikkal yow góor bi yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam la la jàngal sa jabar lu mu la mën a toggal bu dee soom bi sax bu ñëwee danga war a lekk te ni mu te noppi loolu lay loolu la lool la loolu la sunna jàngale waaye nag Sénégal ngay fekk góor ñoo xam ne seen dépense matul te lu ñu leen taajal ñu kaas <laughs> noo jigéen ñi amu leen fulla waaye li ma dama leen ñëw leen seet si coach ñëw leen seet si coach ngeen am fulla ak fayda affirmé wu parce que doomu aadama boo dul affirmé wu sa àdduna dafay metti parce que comment se fait tey ñu jël ay mit naan la yow euh, sa doom Euh, pour mu baax ku ñulug sa jëkkër yàq sa doom yooyu mooy waxu lal ay lan mooy ñulug lan mooy yàq jëkkër joo xamante ni bu weesoo kawlal ba amalu la njëriñ mbaa jëkkër joo xamante ni <laughs> mais c'est normal parce que yëpp maanaam c'est euh, manipulation collective la mooy dañu dañu détruire dans l'ensemble télé yi tey bu ñu toogee def débat tellement que da ngay gis ñu ne waaw kër kay góor moo ko war a yor góor moo war a nàngam waaye yow jigéen bi danga war a muñal sa jëkkër danga war a aha maanaam fu ñu waxee góor rek dinañu indi lu ñuy jël jigéen daa dalay buuxaat charge bi yow sa jëkkër bu meree ci bedd mi c'est de ta faute sa jëkkër bu ñàkkee liggéeyam yaa ay gaaf bu ngeen mënul am doom ci couple bi yow yaa ay gaaf yaa mënul jur yaa stérile bu kër ga neexatul bu sa jëkkër jubóol ak ay frère am yow yaa leen jaxase yaa bon yenn situation yi yow da nga koy xool ba ci yàgg on dirait que da nga nekk ci film on dirait que nekk ci film parce que da nga naan et mu ngi xew ci biir kër yi mu ngi xew ci biir kër yi tey ñaata yoon ngay gis euh, góor nekk jigéen moom ci boppam mënul am doom mais bi jigéen bi lañ koy jiiñ mu nekk lu yéeme tey bu fekkente ni am nga problème am na ci yenn famille yi nga xamante ni seen benn femme baatu muñal. mooy seen solution muñal demal togg muñ jigéen buy sëy day muñ góor bi tamit gis ni parce que gis nga góor ñi dofuñu góor ñi dañu muus dañu intelligent bu ñu xamee ni yow amoo secours et que yow euh, mentalement tu es faible danga am manque de confiance buggoo sa bopp parole yooyu lañ lay détruire ah yow yaay sëy ah, boo bëggee kër gi neex yow yaay sëy ah <laughs> man rek maay sëy <laughs> euh, alxayri ga bañ koy def ci jumaa man rek maay sëy parce que tout le temps damay dégg ñu naan lan moo tax du taaj ñaari partenaire ci jumaa bi wax ak ñoom mais mbokk yi il faut que ñu xam ne sëy dafa gën a profond loolu lu baax la de taaj la wax ak ñoom lu baax la mais il faut que ñu xam ni sëy éducation la tey bu ñu xoolee ni ñuy éduquer suñu doom yi euh, da ngay gis ni doom bu jigéen bi yow bi mu amee 6 ans nga commencé di ko jàngal raxas ndab jàngal ko fóot jàngal ko togg jàngal ko macha allah góor jigéen ñi dañu mat dañu gën a matir góor ñi. jigéen ñi dañu gën a responsable góor ñi jigéen ñi dañu gën a mun seen bopp ko góor ñi parce que 6 ans lañ koy jàngal euh, ngeen baal ma xëy fóotal sa slip raxasal sa dàll raxasal ndab yi baleel fii góor bi maman boobu maanaam ah, mu ngi football xale bu góor bi booy bi am 6 ans maman boobu mu ngi football mu ngi dàqante mu ngi bëri mu ngi wër koñ bi xamul dara mais ñun <laughs> góor ñi li leen jigéen ñi rawee dafa bëri maman boobu góor bi kenn toogul di ko jàngal kenn commencé wul di ko wan ne kii sa def balaa ngaa xam ne raxas ndab góor da koy def jigéen dafa ñëwal Europe bi ba nga fekk moodu moodu góor ñi nga xamante ni <laughs> tey ñoom ñooy toog seen seen kër yaa naan du ma raxasal jigéen ndab te yow boo demee nga raxasal tubaab bi ndab mu de la fay ay weccit pourtant buggoo bu buggoo tiyaaba yàlla boo raxasalee sa jabar ndab tiyaaba nga cee am dangaa gënoo yonent bi alayhi salaam gënoo ko woon et pourtant nan ngay def soxla nga xaalis tubaab bi danga koy raxasal ndab danga koy bale danga koy fabee danga koy raxasal sax duus waaw bu gën a yées boobu danga koy def mais pourtant sa soxna jaab nga ko jàppee daal jaab bu amee problème ci néegu sëy bi eh yow yaay yow yaay muñ ah. mais loolu loolu mooy lan yow yaay muñ communication nga tëj sa gémmiñ gi mel ni muuma jigéen ñi di bëgg a dee ndax tooŋoo gi tooŋoo gi di leen bëgg a rey parce que jigéen ñi amuñu amuñu force mentale mais nit ku la toog moom moo décidé ma la moom moo décidé du wax ak yow quand même amal fulaak fayda bu la toogee nga nga gën koo may patt bi. waaw euh, il faut que ñu xam ni jigéen ñi dañu war am force mentale dangay góor boo xam ne ca ca doxaan nga ngeen baal ma ca ca lay commencé bu lay doxaan di la toogu day jékki-jékki bu la meree dagg téléphone dootu la woo nga nekk fa di ko woo message di ko harcelé di statut ngeen di gaaru wàllante def yu kenn xamul une fois que nga dugg ci say manipulation boobu mooy li nga xam ne moo lay détruire lentement lentement lentement góor bi di la tong tongu manipulation la tong du dara dul formu domination du ma wax ak yow damay de xoolal dañ koy calculer tong bi dañ koy préméditer dañ koy jàngat dañ koy dañ koy defar ba mu mot daal di jël tong bi décider tong la tong la nag ne pat toog tegle seen tànk oustaz bi nekk nga daw fa ah koo xam meeru mbootaay boo xam ci koñ bi man de sama jëkkër daf may toog man di sama jëkk doo xam lan laa ko defoo ko dara jub ko jub bon ju salte la yore maa ko wax waaw ndax mosuñoo gis fii ci histoire yonent bi sallallahu fu muy tongee ay jabaram waaw nit ki sa jabar bu la defee dara doo ko taaj nga wax ak moom mais irresponsable bon immature ndax yéen nii bon la ak yées maa ni sa jëkkër bu la tongee nga tong ko boo xëyee bu la tongee xëyal defar ba jekk defal ma sa tagal gu baax defal ma sa topp tey baas sol say taloo di jaabante ci kër gi di way di togg ba mu neex di teg keroog nga a gën a a kontaan nag day am force mentale waaw del ma ni la toggal ca waañ ba jëlal ma sa leget dëpp sax di way di tëgg waaw naan tey ku sa xool metti man ni ku sa xool metti ku sa xool metti tàccu leen ana taasukat yi waaw bu boobaa parce que loolu daf lay may force mu xam ni yow euh, tongu gi muy def silence am gii moom rek moo ko yëg yow yëgoo ko yàlla boo am sa whatsapp am groupe bu mel ni ko Coaching Firdaws <laughs> boobaa leneen ngay wax <laughs> ndax di nga fa tenir ay discours yoo xamante ni di waxaale sa soxla te <laughs> macha allah gis nga jigéen da nga am force mentale. parce que le fait que mu lay tong di la gis ngay jooy di déprimer wu di boole mu naan ñaw hmm, dama koy yar ñaw jigéen ñi dañu kii ah, dama koy yar léegi su ma la waxee waaw laa bëgg a dégg ah, su ma la ay yow mel ni ay firaawu na kaw. nit ki bu fekkente ni def na la daal doo xaat moom mais dama lay forcer dama lay imposer da mais attends boo ko defoon noonu est-ce que di jot ci moom bu di ko dugal sa kër lii daal man man des fois je me demande góor ñi la moo leen dal yor ñaari kanam ñaari kanam comme ne mais nit ku foo baaxul boo génnee ci biti yaa ngi sourire yaa ngi ree buñ la saagaa sax nga wanaasu ko boo duggee ci biir kër gi di xabar xabar yi ah munoo wax sa jabar wax bu neex mel ni yow da nga wax bu neex te ku ubbi woon sa whatsapp li fekk yaa ngi naan baby baby namm naa la ci loo nekk big nelaw ma te yow iñaane nga ko wax ki dagan ci kër gi xalal te boo ko waxee nga am ci tuyaaba auzu billahi mina sheytaani rajim laa xawla wala xuwata illa billah man man je ne comprends pas man Faty maa ngi lay delloo ziar man duma comprendre góor ñi ban seen xel yi ban façon virus moo ci dugg parce que des fois le fait que ñu comprendre lii maladie maladie éducation bi parce que c'est trop c'est trop waaw ndax yéen ñi da ngay jàpp ni moo lay may fula fekk sa jabar moom ba mu la xeebee ba mu débarrassé woo ci yow ba mu xamee ni góor gu ñàkk fayda nga góor gu amul personnalité nga jeex na ba mu ko xamee yàgg na ba mu ca paree dafa yàgg ngay toog di di conditionné ak di jaay fula fayda gu metti fekk na boobu moom <coughs> say dossier moom lem na ko ba sànni ko ci tiroir bi donc nit ku am fula fayda. dangay xam communication sa soxna bu la defee dara nga toog wax ak moom respecté sa bopp mais nga respecté manqué respect sa bopp weesuwul nit def la dara nga di ko toog mu nekk ponk lu mu góor di wër kër gi di jaage jaage def du n'importe quoi te yow sa soxna bu la defee dara nga toog wax ak moom keroog lay xam ni yow danga mature dina xam ni yow mii kat vraiment góor gu mature nga góor gu nga xam ne xam nga nu ñu communiquer ak sa soxna mais sa soxna nit la moomoo ko waaye yëfu maa tey soo baax ah, dama koy imposer su ma la waxee dara bul tontu boo ko deful ma tongal wala ma koñal wala ma nangu dépense bi wala may wax ak xale yu jigéen ñi wala mais ba kañ nee <laughs> na soof rek <laughs> non am na ci góor ñoo xamante ni munuñu lu dul doxaan buñ ñu bu buñ doon joxee record wala premium des doxaaneur ñoom danañ ko jël mën nañ ko jël coupe du monde mais sëy zéro parce que pour ñoom sëy kenn du leen xisaab góor ñi dañ jàpp ni yow mal xiyaam kenn du leen xisaab. parce que jigéen ñi lañu topp sa sëy sa àjjana la dépend sa sëy moo lay dugal àjjana mani sëy bi benn tomb la ci tomb yi lay dugal àjjana la lay dugal àjjana sa julli sa woor say azaka sa aqida sa jaamu yàlla moo jiitu sëy bi sëy bi soo ko ñëw dernier poste dernière position nang fi soo sa julli nga xool bul julli waxtu bul bul bul bul am aqida bu set bul muuru nga dem topp sa jëkkër di ko jaamu nga xool ko may jaamul sa jëkkër man balaa may bëgg a crise rek di crise cardiaque ñu naan jaamul sa jëkkër koy jaamu jaamu sa jëkkër mooy lan jaamu sa jëkkër mooy wax yooyu dafa dafa dafa ngande dafa dafa rëy dafa ëpp yàlla la ñuy jaamu nañu bàyyi bokkaale yàlla gi jëkkër nit rek la kenn du leen jaamu dañ leen di respecté pour lan leen di jaamu pour la jëkkër da nga koy respecté jëkkër da yaa koy mottali tey góor bu dee tey moom kase kase kase na nekk milliardaire na nekk imam na nekk mun a doon bu amul jabar il est incomplet kenn du ko respecté kon ki nga xam ne mooy tax nga complet ki nga xam ne mooy tax ñu respecté la doo ko respecté ki nga xam ne mooy tax yow nga nga nga nekk nit boo xamante ni ku la gis xam ni yow mi kat macha allah nit bu mot nga boo waxee ñu déglu la lu tax doo ko respecté mu nekk sa ginnaaw nekk sa genn wàll ki nga xam ne mooy mottali sa iman waaye déedéet. déedéet am na ci góor ñi nga xamante ni sëyu apparence lañu mën waaw bëgg nañu ñëpp gis apparence bi mais boo nekkee ñoom ci biir néeg bi mbaa nga nekk ñoom ci biir kër gi musiba ngay gis société bi nag nekk complice bi nga xamante ni lu daal jigéen ñoom ñoo ko ko teg ndax tey ci société bi nag laa bëgg ñu wax ci parce que tey société bi télé yi rajo yi internet bi parce que yow boo bëggee yee jigéen ñi sax yow la ñuy déclaré guerre ndax dañ naan ki njëkk a yeewu moom buñ ko sànniwul ay bombe atomique ba mu jóge fii dina yee ñi ci des ñëpp te bu leen yeewee du doon suñu arrangement bu ko defee góor ñi def coalition nañ dem attaqué euh, nit bi parce que lu tax <laughs> mooy li muy wax arrangé wuñu ndax lii bu sama jabar déggee problème la gis ci góor boo xam ne day contrôler portable jabaram pour xool lu muy déglu ak lu mu dul déglu <laughs> non non non non man des fois man damay jommi parce que lu tax mooy xam nañ ni nekkuñu ci dëgg liñ naan ku aj ku àjj lay bañ ku téel lay bañ ndax tey boo ajee dangay bañ ku téel ndax xam nga ne la nga aj baaxul ndax sa jabar boo ko yoroon ci condition yu baax yor ko ci condition yu rafet yow lu sa yoon ci ñiy wax góor ñi dañoo bon sa yoon du ci nekk parce que yow xam nga ni góor ñi bon bokkoo ci yow gar mi nga faaris nga xam nga ni yow jigéen teral nga ci xam waaye bu dee dangaa bon dangaa yées foo déggee ñu naan góor ñi dañoo bon sa xol bee laaj maanaam <laughs> loolu c'est psychologiquement parlant dañ naan wax heure buñ ko waxee nga santé ci sa bopp xamal ni ca nga bokk sincèreal nga dem dimbali sa bopp nit ku baax dangay sincère ak sa bopp nga dem defaru nga xam ni yow rek yaa war a defaru waaye foo déggee ñuy wax ci góor ñu bon ñi yaw góor deral dérange yow la yaa ngi si jàmm ah yow xamal ne ci faari si nga bokk yow danga naan ah man de man maa ngi sant yàlla man de sama jabar princesse la li ngeen fi wax yëpp man dégg rek laa ci am waaw ndax man bu ñuy wax ci jigéen ñu bon ñi man Fatima Zahra lu sama yoon man je man je baax la macha allah fu jigéen ju baax daagoo ma daagu fa bu ñuy wax jigéen ñi def nangam ak sangam ak sangam ndax man sama jëm bopp xam naa jigéen ju baax laa kon tax may tëb di dal ak di mer ak naan waaw kii bu leen ko déglu kii ni lu sama yoon donc nit ki daal dangay wóolu sa bopp dangay xam sa bopp dangay bëgg sa bopp te jigéen ñi looloo leen manqué ndax jigéen yàlla suñu borom moo ñu njëkk a teral yàlla suñu borom moo ñu njëkk a jox kàddu ndax ñaata yoon ci xista jigéen bi ñëwoon di boole eh, borom këram ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jooy nga xamante ni mu ngi ñëw naan yonent bi sallam jëkkëram daf ko méngale ak yaayam bu mu jur yàlla suñu borom wàccee aayam di wax ni à chaque fois góor jël baat bu ñaaw bu toll noonu teg ko ci deru jigéen na woor ay fan mbaa mu goreel jaam mbaa mu saraxe imagine leen ci kàddu gu ñaaw gu góor teg ci deru jabaram yàlla suñu borom digal jox ko jox góor ñi punition à cause kàddu gu ñaaw kon yow am nga droit saaga sa jabar foo ko teg te aaya wàcc di punir góor ndax wax ju ñaaw ji mu wax jabaram nga xam ne xaw la mi ñëwoon di boole si e, jëkkëram yonent bi saa salaam ci fa mu toog fa la yàlla ne yonent bi saa salaam neel soxna si dégg naa ay kàddoo wàcce aaya góor ñi nañu rusuwaay tey dama naa ñaata yoon bu jógee ne jigéen ñi amuñu kàddu keroog yonent bi salaam ba mu amee problème ca umra war a dem war a dem euh, mook saxaaba yi war a umra ji ñu ñëw ba yegg si ci euh, digal bi nga xamante ni fa la ñu waroon dugg euh, yéefar yi tere leen ñu dugg ci biir ci biir ci biir màkk pour umra ñu nekk fa di négocier di négocier di négocier di négocier ba sonn ba négociation bi jàll yéefar yi war a war a war a war a accepter pacte bi jullit yi war a delluwaat Medine saxaaba yi ne duñ ci daal.